mooy actualité réew mi. non ma xelal mhm. tey tey nekk loo xam ne non dafa nekk loo xam ne maman chaque jour da nga koy wax mais ñun duñ ci doyal chaque jour muy li nga xam ne mooy lor réew mi chaque jour muy euh, dëkk bi tàkk chaque semaine parce que dëkk bi tàkk da ngay wax lundi ba lundi bi dëkk bi tàkk te da ngay wax tey gars yi duñ ci bàyyi xel réew mi du ci bàyyi xel le président du ci bàyyi xel mais tàkk-tàkk bi nga xam ne moo am Touba barki démb yaakaar démb yaakaar naa gis nga ko te chaque semaine yaraax keroog keroog encore Dalifort mais lan mooy problème mu fay réew mi tàkk tàkk Euh, société yi tàkk yaay booy saraxu tàkk tàkk laa bëgg a xam tey ci yow. nañ def sarax yi rek nañ def sarax yi non sarax def sarax yi mais tàkk tàkk yi. dama ne boo xëy di uti soo xëyee di uti yor mhm. képp ku yor place moment bi kër sax place la ndax njaboot gi nga fi bàyyi marchandise la. Mhm. dëggu leen sarax yi. tuur leen ci kër yi ku am sa xar rayal am sa béy rayal am sa nag nag nag séddale dama ne ku am xar ku am ginaar. rayal ci sa kër ku am xar rayal ku am bëy rayal ku am nag rayal séddale sarxe sarax lu mu mënti baax mais na doon deret mhm. loolu ci ñu toll fii ñu nekk ci sarax bi daal deret lu na doon deret tuur deret yi daal nañ tuur semaine bii nii dañu tuur deret ju nañu ray ku am loo ray bu dee ginaar mhm. ray ko ci sa kër mhm. nga togg ko ñaari ndabi la ceeb nga saraxe bu matee benn nga def ko benn saraxe bu ko xeeb dërët ji ngay rendi ci sa kër tuur ko daal bu ko xeeb soo mënee am nag jël ko nga partage waale mu gën a yaatu mhm. ki am doolay nag mhm. bu ko xeeb na ko def mooy saraxu semaine bi parce que tàkk-tàkk yi bëri na yaay booy semaine bi sarax hmm? yi ñooy féewaloo mhm. tàkk-tàkk coow jur loo gën loo gënul xol yi futt yëpp hmm? daal mooy mooy fànq buri bi def laax mhm. def rey rey moom faaw mu am mhm. ku yor sa njaboot mhm. te bëgg ñu mucc yor say njaboot bëgg ñu mucc bëgg say xarit bëgg ñu mucc bëgg réew mu mucc utal loo rey ci sa kër séddale ko ku mën na nga def ñu nekk diaspora yi nañ def ku mën na nga def daal ku mën rek sarax yi parce que yaay booy dëkk bi dëkk bi yëngu na non dafa mbalaanu musiba moo fi wàcc ba léegi yàlla na ko suñu borom saafara yàlla am na lépp dara jaaxal. Mhm. yaay ba ñu jëm li nga xam ne mooy projet Sonko encore ba léegi rek nekkuñ ci yaakaar naa lu bëri réew mi gis nañ ko. waaw waaw ok yaay booy li nga xam ne waaw non yaay booy li nga xaw Touba barki démb. tam aussi foog ñu dugg tey yow parce que yaay euh, actualité la ñuy wax. te ñun dañuy topp actualité yaay ba mu jeex tàkk. waaw. meeru Kasaragab damaa yaakaar ne. Mhm. lu dul laa ilaaha illallah. Mhm. jërëjëfati Serigne Touba. waru faa jib bisub Sëñ Fall. yu sëñ Fallou moom ku fa xajal leneen lu sëñ Fallou rek sëñ Touba rek yàlla nee na yonent bi nee nga bëgg faa indi leneen lu bokkut loolu yow jàppal ne la nga def lépp sa kaw léegi. mais dañoo gis ne politique moo fa am keroog. ci jumaa ji ma ci débat man. yaay booy ah mais yaay booy ne ab taate la. Ah, amul tax ba am na ñu génn kilifa yi jën di ci wax. li ma la wax nii ku mu doyul da doot la doy dama la ni weerub sëñ Fallou bu dul weerub sëñ Fallou tuubaa ku am sa lu baax yóbbul ku am sa bon téyel fitna coow bruit ci suuf Touba man Aïda du moo ko fa def. kon daa am ñu ko fa def daal. man sax Aïda Saliou. Mhm. lépp loo xam ne su ma mënee dem Touba. Mhm. man su ma su ma su ma yorul ak su ma yorul ak set sax du ma dem Touba. bu doon beeg mhm. màggal sax te setuma. damay toog. ndax fonk nga fonk Touba. luy dal jigéen bu ma dalee sax. mu tombeeg. Euh, màggal Touba wala leneen wala mu tombeeg Kazu Rajab wala mu tombeeg loo xam ne maa war a dugg Touba. ndax fonk Touba te mënumaa dugg Touba du ma dem ci sama xabru sëriñ. du dem ci xabru suñ Touba du ma dem ziar. ma xam ne man mënumaa dugg suufal Touba ba génn te defuma loolu Touba man du fa yóbbu sax. mais bruit Touba màgg un. Euh, waaw ña ko def ci kas ci ci yuuxoo yéeg ci barrière yi. est-ce que loolu. muy opposition di état. est-ce que na fa fa taay mais am. dama ne muy opposition di état. boo xamee loolu day am est-ce dem guddi wala nga dem bëccëg. dama lépp loo xam ne bu ko waay defee mu jur bruit. Mhm. tànqal benn jullit. Mhm. ku ko yaakaar ne yaa ngi koy def. keroog julli gu baax sax de pour mu am fa problème la. waaye yàlla baax na sëñ Touba mate na boppam lépp sëñ Touba mën naa defar léppam mate na ko. ñu gis si léegi rek ba léegi premier duñ toogee rek waxuñu troisième mandat ci Macky Sall ñee ngi naan da am ñi du am lan nga gisee tournée Macky Sall bi mu def tournée trois jours yi. Thiès waaw mais daaw ak ren bokkul na yaay booy. la ma waxoon daaw boo ko tegee ren de mi ngi ko waxi ren. man laay waxee. yaay booy fan yii wax nga ñu ni toog nañ fi wax nga ñu ne. borom coow li ki war a toog ci réew mi coow li coow li bëri na ki nga xam ne ah. mooy borom coow li nii ñu koy topp di mbubboo chaque jour du ki xam ne moo war a toog ci réew mi ki war mi mu ngi weex tàll. te ku bëgg Serigne Saliou lay te ku bëgg. Serigne Saliou lay dina ñëw ci réew mi yàgg dinañ ko fi dégg. ku bëgg Serigne saaliw lay doon. te kenn xamu ko instant coow li bëri na fii de. ñi ko xam góoma bëri na de am na ñu ko xam nag xam nañ ko bu baax waaye ñi ko xam man gisaguma photoom gisaguma jëmmam. ràññeewu ma ko mi ngi ñëw. mais ah, borom mbooloo maa ngi fi de bu ñëwee itam. baax na nañ fi dégg ba li ma gis man ki may wan li ma wan. Mhm. kooku bu ñëwee na doon surprise si Sénégalais yëpp li ma la wax nag denc ko. Mhm. damaa bëgg mu dem vaar. Mhm. ah mu kay dañ koy denc vidéo nga wax. te day dugg inter yaa wax ne internet tudd internet. internet la tudd internet la tudd. fii fa cent ans loo fa loo fa ubbi gis ko fa. te waxaati nga yaay yaay booy. lan ngay wax ci réew mi instant yi nii. Euh, yàlla nañu yàlla defal jàmm. Mhm. yàlla nañu mucc. mais maman waaye yàlla nañu mucc mais macha allah dañoo jëm ci leen loo xam ne euh, muy Saint-Valentin yaakaar naa nag muy euh, fête boo xam ne àdduna yëpp koy fête rawat na xale jigéen yi xale yu góor yi ñu bëggante ak ñi nga xamante dañuy sëy rawat na ñi nga xam ne dañuy bëggante sëyaguñ naxee bi bëri na vraiment damay wax ci digg bi naxante bi bëri na biiralante bi damay wax direct nax la yóbbu la fanaan ak yow def ay affaire en tant que yow yaay maman nationale ñu lay déglu. man nit daal mën ngaa bëggante waaye doo yàq diggante. Mhm. weer wi daal li ma ciy ñaan xale yi nga xam ne amaguñu jëkkër. am na ñu nax de. koo xam ne yaa ngi bëggante am jëkk ku am jabar bu ah? bul dem di ko jox cadeau boo xam ne mën naa tas këram. Mhm. wala mën na koo indi bruit ci néegu sëyam. Mhm. ndax yow kenn takkagul la. te jabaram jam bàyyi ca kër ga amaana amul lum ko mën a jox. wala loolu nekkul ci boppam wala amul inspiré bi mhm. dafa xale yu am inspiré nag yi mhm. amagul jëkkër dañoo am inspiré de mhm. li may gis ñu ko estati fan yi ci réew mi ay boîte ak ay lu nekk nga ci biir xam nga boo ko yu joxee nit te jabaram joxu ko ko bu yeggee yóbbu ko këram nan la kër gay demee. laay kër ga lay toj maman. nañu loolu nag bu baax a baax a baax. Mm-hmm. Eh, maa ngi wax ne nit ki mën ngaa bëgg ku ne ndax bëggante bi moom c'est valentin bi. Mm-hmm. chaque jour valentin la. Mm-hmm. ndax koo bëgg si sa xol même waxuma jëkkër ak jabar. waxuma coro ak waayam. waxuma yooyu mais kenn ku ne nga koo bëgg ndax idaani yow mii xam nga naa la. ndeysaan dëgg la dëgg la. xam nga a ma bëggee Serigne Salim. man Serigne Salim war naa koo jox kan. wallaahi dëgg la a mm-hmm. ak ñeneen a ñeneen ñoo xam ne samay valentin a waaye naa ko jox cadeau valentin lanu ah, mm-hmm. ah yëpp ay valentin valentin ku ne am nga sa valentin mm-hmm. a ah, waaw ba tax na mbir mi ku ne man nga cee gis sa bopp te du ñaaw du lu bokk ci jamono la rek te rafet na ndey sax jël lu rafet jox nit yeesal sa bëggeel kay bis bu ne valentin la waaye njagam la quatorze lañ ko jàpp ah na rafet rek te si se xale yi toog seeni kër waaw ah, bu la nit di seet nga ñëw si sa batu yaay ak sa papa nga ni ko yaay kii laa bëgg fesal ci sa yaay xam ko sa baay xam ko lu gën a doon valentin noonu gisuma ko waaye mm-hmm. valentin boo xam yéen ñaar rek mm-hmm. kenn xamul fa ni ak jëm wóorut waaw mm-hmm. ah, ñu rafetal ko rek ko rek réew réew la macha allah rek mais yaay temps yi da nga sa sa sa communication carrément bul fàtte damaa demoon ci sëy bi mais yaay temps yi li tàng li ñu bëgg yu tàng yi oui yaay booy nii tàng na de soo ko déglu am esprit. yaay booy daa mel sa woykat bi temps yi esprit son esprit bi moom yow moom am naa sa son la. xam nga damaa bëri doole. wax na ko sa woykat wax na ko ni damaa bëri doole damaa bëri man la yàlla àndal. esprit déplacement ah. waaw nga yaay Wally Seck warut def mbir mi nag daf maa yóbbu ma. ndeysaan wàññi doole bi moo tax mu. ndeysaan yóbbu ma ci yeneen tamit. dama koy def te yaay booy dama gis ne yow internet bi. chaque semaine nga génn deux fois mais yow da nga am ay fan spécialité bi ñoo xam ne xamuñu la parce que yaay booy ba ci say commentaire sax amul benn commentaire ne. xale yi dañ maa rus ndeysaan ñii maa bokkoo xam nga ñii ñii damaa bokkoo bi. Mhm. ndax njaboot gi mujjee juddu ñëpp ak tarxiya boo mënti doon rek mhm. alali sëriñ Saliou. Mhm. ndax sëñ bi ñëpp ko bëgg ñii dañ maa bëgg ngir sëñ bi ñii bëgg ma ngir sama jikko ji. ñii bëgg ma ci ba ma doonee tuut à âge de treize ans quatorze an quinze ans mhm. fi ma duggoon ci bi may tuut ba léegi falaa nekk mhm. la te saa yu ma xëyee damay gën a yeesal sama bëgg ak sama jaamu ñi bëgg ma ci comportement bi may àndi ak njaboot gi mhm. ñi bëgg ma ci respect bi ma jox ndaw ñi ak jeunesse bi dama leen a nag génn bi li ngay gis muy bari bari yëpp damaa waroon di dugg kër gu nekk di waxtaan ak xale yi xëy na du ko mate moo tax may génn ci internet man wutuma ay promo joxe mm-hmm. numéro mm-hmm. pour am client de déedéet kër goo dugg am naa fa client ndax bëggeel gi waral client mooy mbëgg gi ma xamal bëgg mm-hmm. beneen ba ci des ñi bëgg ma ngir sama doom ji Wally Seck ñi bëgg ma ngir ni mu bëggee parti Macky ak parti Sonko parti Bougane Gueye parti yëpp la parce que man alali Serigne Saliou laa gay dëgg Serigne Saliou laa hmm. ñii di ndongo yi nga xam dañoo jaar xel ko hmm. am nu ma def ak ñoom hmm. loolu rek a tax ñi bëgg ma ngir Serigne Babacar macha allah sama soppe bi ñi bëgg ma ngir bàyyi Laay ah. sama turandoo yaa ngi nii Cambérène waaw xam nga waaw Sénégal laa Sénégal nga nekk ak diaspora yaay booy li ñuy tëjee tey mooy lenn tey loo xam ne dañ koy def mbokk internet ñoo lay seetaan ñuy commentaire ñi xam ne dañuy commentaire soxna Aida Saliou te mosuñoo gis soxna Aida Saliou yoon laa bëgg nga tëjee spécial mbokk internet ñi fekk képp kuy seen internet ci monde bi rek day commentaire Serigne Saliou day commentaire soxna Aida Saliou loo bëgg nga nuyu leen remercier leen tàggu leen mooy sama fin ci yow waaw man li may wax mooy képp ku ma commentaire sa bopp nga commentaire ndax boo commentaire yaa ngi commentaire sa yaay mm-hmm. te li ma bëgg billaahi moom la sa waajur wi ne ci biir kër gi bëgg mm-hmm. muy jàmm mm-hmm. li nga xam ne moom laa séqal ñi nga xam moom laa séqal liggéey muy mbégte ñooñu tey sama njabootu bopp lanu famille lanu man ak ñoom benn lanu ba tax na ku may xool rek xool ma ci sa bopp sama jëmm bu dee góor nga nga xool ma may sa yaay mm-hmm. bu dee jigéen nga nga xool ma ni sa nawle laa bu dee doom sax sa nawle laa mm-hmm. parce que lu rafet rek laa bëgg lu baax rek laa bëgg mm-hmm. ba tax na respecté gi ma leen respecté moo tax duma tontu lu ñaaw duma wax lu ñaaw Mm-hmm. su dee wax naa ko te yëguma ko rek maa ngi jéggalu mm-hmm. waaye maa ngi leen jéggalu ci connexion yi di leen jéggalu ci temps bi ngeen di def ay écriture ci man mm-hmm. ak bëgte gi ak seetaan gi ngeen may seetaan su ma yéexee dugg sax dañ naan ma waaye da kañ ngay génn am na benn commentaire bu sama doom liir ndax man jànguma du ma liir commentaire sama doom bi nee na ma yaay kii nee na kañ ngay woote grand théâtre <laughs> ma ne ko grand théâtre <laughs> ma ne sax woote woon ci kër gi dina fees ba grand théâtre yooyu ay bëgg la mm-hmm. waaw di leen wax na nag ñu ngi dëgmal ay bis yu nekk ay bis waaw loolu la waaw foofu am nañ koy cof rek sarajab mm-hmm. di dëgmal appel mm-hmm. waaye di dëgmal waaw waaw kot lañ ci def am na yoo xam ne ñu ngi koy dëgmal après la la la le huit mars le huit mars le huit mars journée de la femme jigéen ñi seen yaay dafa bëgg képp koo xam ne nag bëgg nga participer pour xam sama 8 mars bi fu ma mhm. koy defee mhm. maa nga bëgg ma ñëw sa kër yëgal si la ko rek bind ko ci commentaire commentaire bi le 8 mars sa numéro téléphone ah, woo ma ñu woo la si la le 8 mars dina garaaw ànd dama woote lu garaaw loo xam ne soxna Sall bi ko woote nag waaw Sall xet yëpp nañ génn mhm. taalibi Sëriñ Sall yi jox ci ay jagle ay bis jigéen ñu valeur yi ah, valeur jigéen ñu ñuy xaar jigéen ñoo xam ne ñëpp a leen naw ma bëgg leen a sargal jigéen bientôt di ngeen déglu graw ak yaa soxna El Saliou le 8 mars incha allah sargal jigéen stable bi allah di wax leen rek yéen ñi nga xam ne dañuy commentaire toujours seen yaay seen sœur seen lépp soxna El Saliou tey moom euh, spécial mbokk énergie commentaire ñoom la tëjee tey. ndax la Saint-Valentin ndeysaan te yéen laa bëgg. ndeysaan waaw ah, seen nuyoo ngoog. Mhm. ngeen góorgóorlu ñu jàpp sëy yi nañ mhm. gën a valentin ak seen mhm. yi. ñuy jàng yàlla defal leen jàmm ñuy jàng nañ gën a kole njàng mi. parce que ëllëg ñoo réew mi ëllëg ñoo yor réew mi. ñu nekk bitim réew ci lañ may teral ni seen mag teralee. ñu nekk bitim réew. di daan doole di di wax ne soxna Aïdara sama valentin. waaw jaaga sama valentin ndaysaan waaw soxna Mominatou Kébé sama Valentin. Mhm. soxna Aïda Diallo bu Cheikh Béthio sama mhm. Valentin. Mhm. Euh, Ngoy Fall Ngoy Fall lay sant xarit soxna Bali Moutakha sama Valentin. képp ku baax rek. première daam première dame Marème Faye Sall. sama Valentin ñëpp samay Valentin la. kon yéen ñëpp xaar leen. incha allah jërë ngeen jëf. tey le 8 mars am na lu ñuy pare dina garaaw. jërëjëf yaay booy ñu ngi remercier baax a baax vraiment ni ñu yombalee li nga xam ne mooy parce que fii suñu kër la ñun. bu fi ñëwee dañuy dindi mbubbu journaliste teg fële ci buntu ba buñ génnee solaat ko parce que fii suñu kër la saa su rek di wax commentaire yi euh, suñu yaay noonu macha allah maman national yaakaar naa bu ñëwee maman national nag kenn ku ne am na cër di wax commentaire yi ngeen commentaire suñu yaay ngeen ñaanal ko mu yàgg fi te wér ci barke Seydina Mohamed sarax yi mi wax chaque jour saa su ne dafa bokk ci réew mi jërë jëf ba beneen yoon incha allah merci beaucoup